مبقي غنا بن سنتي يالله جولي شي ننتبي عليه الصلاه والسلام دلي سي وات اجيين تي تفسير القران بني امل في تي زاويه مام شغل حاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه ديكو عندك suñu télévision Safina TV and ko mbokk yi nga xam ni ñu ngi ànd ak ñun lépp di déglu tafsir bi waaye àndante ko mbokk yi nga xam ni ñu ngi topp ci Safina TV tey nag suñu tafsir ñu ngi firi suuratul infitar di saar woo xam ni dafay jàngale ihwaalu yowmal qiyaamati maanaam yowmal qiyaam buy ñëw loolu lañu saar wi di jàngal muy bis boo xam ni mi ngi ci sunu kanam faaw dana ñëw su ñëwee jaam yépp danañu ko teewe ndax yàlla nee na qul inna al awwalina wal axirina la majmuuna ila miqaati yowmin maalum ñi mu njëkk a bind ak ñi mu mujj bind yépp daan ko teewe woote boobu ak jataay boobu rek mooy benn woote boo xam ne kenn du ko tardé mooy jataay boo xam ne itam kenn du ko wuute ñépp a wuy muy bis boo xam ni bis bu tiitlu la muy bis boo xam ni dana ko wax ci biir saar wi ñu bis la boo xam ni kenn du fa mënal kenn dara moom lay tëjee saar wi bis boo xam mbir yeb ci loxo kenn lay nek mu yàlla subhanahu wa taala waxna ko ci suratu nabi la yatakallamuna illa man azina lahu arrahmanu wa khala sawaba mun ni yowmal xiyaam bu ñewé kenn du wax lu dul ki yàlla wax lo rek moy wax te ko yàlla wax lo itam do wax la la neex la neex yàlla ak fam la yemloo ngay wax مم لا يتكلمون كن دوخ الا من اذن له الرحمن لودول كي خامني يالا موكو جوخ نديغال بور مو وخ تو خالص وابا لي جوب لاي وخ سو بوبا نيپي تيت كان كو نيك سا بوب داف لاي تال القران فلا تسمعوا الا همزه نينا دو ديغ بن بات بي جوب مون موني رك ngay deg kuy deg kay ma ngay deg kam dendal est-ce que am nga yaakaar mu ni waaw maa ngi yaakaar de keneen ni est-ce am nga yaakaar mu ni maa ngi yaakaar de waaye kenn ku nekk yaakaar rek ngay deme keroog ñëppay tiit kenn rek moo dul tiit muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa waaye ku dul yonent bi bis boobu nga ngay tiit loolu taxoon Cheikh Alhaaji Malik radiallahu taala anhu ba muy ñaan ku ko làq bis boobu mu ni yàlla wa shafiu fiina fi liqaay soo ñu dee làq yowmal qiyaam yàlla nga ñu làq ci ginnaaw sayduna muhammad wa shafiu fiina fi liqaay alaaji Maalik mi ko wax xam na cheikhu Umar mooy sëriñam xam na cheikhu Tidiane mooy sëriñam waaye làquwul ci seen ginnaaw ñoom ñaar ñëpp dafa dem làqu ci ginnaaw sayduna muhammad ndax ku fa làqu raw nga moo tax mu ni ko wa shafiu fii naa fi liqaay bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ñëpp dajee yàlla nga ñu làq ci ginnaaw yonent bi ndax bis boobu koo làqu ci ginnaawam dana tiit alaaji malik niin bu bis boobaa siwal xibbi mawsuufun bi rucbin wa rëhbati nee na kenn rek moo dul tiit muy seyduna muhammad mu ni koo mi ngi jàq ba mu des kenn muy Seydina Muhammad bis boobu lay nettali nga xam ni bis bu tiis la jaam yi bu nu dekkee taxaw benn tànk téeméeri junniy tànk nekk ci kawam ñu daw songu mam aadama mu ni sam bopp laa tal waaw fu aadama tale boppam dib yonent jur mbindeef yëpp kon keneen xam nga ni boppam lay tal ñu dem ci maam Ibrahima ni ko yàlla moo ne woon wa taxasallahu ibrahima xalila yàlla moo ne woon ibrahima mooy suma xarit comme yaay xaritu yàlla jógal wax ak sa xarit mu ni ñemewu ma àgg ci moom ñemewu ma dem ñu dem ci yonent yàlla Moussa ne ko yow yaa wax moom ci àdduna comme yaa daan wax ak moom ci àdduna kaay wax ak moom fii jaam yi sonn ñu Moussa ni ñemewu ma dem ñu dem ci yonent yàlla Aïssa ne ko ñëwal kon yow yàlla nee na yaay nee na yow yaay baatam kay wax moom mu ni ñemewu ma dem yonent boo dem rek mu ni ñemewu ma sama bopp kay laa tal waaye taluma keneen taluma leneen ñu dawaat ñëw ci maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam mu ni mënuma ci dara de laa leen waxoon te moom laa leen di waxaat waaye xam naa koo xam ni su ngeen demee ci moom coow li sotti mu ni ko kan mu ni sayyiduna muhammad jaar ñëpp àndandoo jëm ci yonent bi alayhi salaatu bu ñu ñëwee ndeysaan mu jiitu jaam yëpp topp ci ginnaaw mu ñëw bi ci kanamu arash bëgg kàbbar pour julli ñaari rakka bala yàlla di ko recevoir yàlla ni ko déedéet tey du bisu jëf bisu fay la jëf jeex na jëf ci àdduna la yam fay rek ak xéewlu tey moo am وني تك تخاو دي خول يالله سبحانه وتعالى يالله نيكو نك امنا لوما لا وخون تا لولو دوما سي ديلو غناو داخ ان الله لا يخلف الميعاد يالله ني لوما ديغي دنا كو ديف ما لا وخون ني ولا سوف يعطيك ربك فترضى ما لا وخون ني دنا لا ماي بيسو تاي سا خيت ني لا گمون دون جولي دي وور دي جوخي ازكا گمني ماي بور ديما جامو daawuñu ma bokkaaleeg dara daawuñu ma bokkaaleeg lenn ñooñu lu nu taq taq tey ci bàkkaar danaa leen jéggal ngir sa barke bàyyi ak ñoom nga dugg ak ñoom aljana ne wala sofu soofu ko rabbuka fa tarba dana la may ngay dugal aljana ba sa xol set sang bi seug ndax ker saw si giwat xol borom bi niko la arda hatta wahid min ummati fi nar sama xol du set fek ben nit ci sama xeer dem na safara mu ne ko wax naa la duma wax di dellu gannaaw demal al aljana nga fëgg ñu ubbil la jox la caabi ji nga téye sa loxo bopp du tëju tànk tëjoo ko te du fees comme àjjana du tëju tànk tëjoo ko te du fees kon li nga bëgg a dugal di nga ko fa dugal mu dem fëgg buntu aljana aati baabal jannati fa astaftixu fa yaqulu alxaasinu man ant xaala muhammad ibn abdullah bu ñëwee fëgg ki yore bunt bi mu ngi tudd Ridwaan ne ko ko kan la mu ne ko man la mu ne yow a kan mu ne man Muhammad doomu Abdullah mu ubbi bunt bi ne ko bi ka umirtu an laa astaftiha li ahadin gayrik yow rek la ma yàlla waxoon ni bu ma ubbi àjjana la njëkk ngay ñëw waaye soo ñëwee naa ko ubbi yëkkati caabi ji teg ci sa loxo mu ubbi àjjana nag yëkkati caabi ji jox sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nga taxaw ci buntu ba di wax ummati yi sama xeet ñëw leen dugg àjjana ñu dugg àjjana ba jeex tàkk waaye balaa ñuy dugg àjjana ja nag xew-xew bay xew mu yomal xiyaam moom la saar wi di jàngale buur ne isa samaawu ndem asamaan si in fatarat xotteeku na wa idal kawaakibu ndem biddéew yi intasharat tasaaroo na rot ci suuf وإذا البحار جيجيب فجرت نيس نيو بدوت نيو أم وإذا الخبور بامل يب بوخسرت دك نيو لب لنكن تبير بامل يجب بورنين كيروغ علمت خمنا نفس بيب بكان ما خدمت لم جيتلون لم جفون وما وما أخرت أكلنا خمني إيه خنوكو ولا ما خدمت لمو جيتو جيتلون تي اي جف واخرت اك لاغا خامني يخي ونكو تي اي جف يالا نك ميغي يد دوما ادم راوتني يفير بلا بيس بوبو من يا ايها الانسان ايو نيت يا ايها الانسان ايو كي ود يالا ما خرك انا لن مول خير باغي ود دي موي بربك صبروم الكريم بروم بتد يو نيت اي لا دال dangay weddi yàlla mu tedd mu baax mii ak fi mu jaar ak yow buur bi nga xam ni ëllëg yi mooy buur bi nga xam ni xalaqa ko moo la bind ba mu lay bind ne koo woon dara toq ma ni yu ndox mu jël ko def ko ci ndigal góor jële ko ca yóbbu ko ci biiru jigéen def ko deret def ko suux def ci ay yax bàyyi la fa ba diir bu ko neex mu def ci ruux ñaw cër yépp def génné ci yépp bind la koku nga koy moy lu tax nga koy moy wala lu tax ngay jaamu keneen ko dul koku ma xarraka lu mo la xir ak ki fi mu jaar ak yow ba ngay moy bi rabbika sa al karim ba daa tedd alladhi yàlla mi nga xamni khalaqaka mo la bind fa sawwaka mu yamal si bind bind la bind bu rafet xoolal doomu aadama ni ko yàlla binde mboolem bindee fii bind doomu aadama moo ci gën a rafet waaye ba la bindee nga rafet fa àddalaka yàlla yemale la loxo yi yem tànk yi yem cër yépp yem te yàlla mi la bind yamale la fi ay suuratin ma shaa rakkabak su ko neexoon yi mu bind bari na mu def la ci benn ci mala yi waaye defu la ca ndax walla kad karam naa bani aadama yàlla ne na kàllaa ak jàjjuwaay bal li fi nekk tukazzibuuna yéen a ngi weddi yéen doomu aadama yi ak yéeféer rawatina réeféer yi waa màkka yéen a ngi weddi bi diini ci bisu pay ba bisu yowmal qiyaam wa inna aleykum xam leen ni nekk naag yéen la xaafisiina ñoo xam ne ñoo leen di wattu ñoo leen di gàdde ay malaaka lañu kiraaman malaaka yoo xam ne yu tedd lañ fa yàlla kaatibiina ñi ngi bind lépp loo xam ni moom ngeen di jëf nit ku nekk am nga ñaari malaaka yoo xam ne ñu ngi ànd ak yow guddeeg bëccëg boo toogee kenn ngi sa mbagu ndeyjoor kenn ngi sa mbagu càmmooñ sooy dox kenn kaa ngi jiitu kenn kaa ngi toog sa topp sa gannaaw soo tëddee kaa ngi toog sa bopp kenn kaa ngi toog say tànk ñoom ñooy kiraaman kaatibiin ñu naan leen raqiib ak atiit raqiib ak atiit kenn kii dafay bind bàkkaar yi kenn ki dafay bind lu baax li bàkkaar lu bàkkaar bi boo ko defee ñu muñal la ay ñetti saar soo tuubee ñu baal la soo waxee astaghfirullah ñu baal la soo waxee lu baax ñu baal la waaye lu baax li nag moom soo ko defee ci saasi amul muñ ci saasi boo defee benn ñu bind fukk bu dee weer wu mel ne weeru koor boo defee benn ñu bind juróom-ñaar fukk ba juróom-ñaar téeméer dañ koy ful malaaka yooyu lay wax nag ngeen bàyyi leen xel inna aleykum nekk naa ak la xaafisina ñoo xam ne ñoo leen di wattu kiraaman ñu tedd ca yàlla kaatibiina ñoo xam ne ñu ngay bind yaalamuuna xam nañu maa na lépp lu ngeen di jëf ñu ngi ko xam te ñu ngeen ko dajale buur nee na nag inna labraara naka ñi gëm yàlla te dëggu seen gëm nga tey def lu baax la fi naimin ëllëg yowmal qiyaam ña nga ci àjjana yi نعيم موي اجنا جو خامي دنج فاي ام اي خيوال وان الفجار نك ييفيري موي كاتيوري لي في جحيم نيغا سفارو جحيم ني لن فاي لاك يسلونا ادنا ني لن فا دوغال يوم الدين بيسو بايبات مو يوم القيام وما هم ديت نيوم نيوني ويدي ون يالا anha ci biir safara bu jooju bu ñu leen fa dugalee bi ghaa'ibina ñuy génn dootuñu génn wa ma adraka xamaluma la yonent bi maa yawmu diini ana lan mooy bisu pay ba summa ma adraka topp xamaluma la maa yawmu diini ana yawma lan mooy bisu pay ba bis bu rëy la mu ne ko bis boobu mooy yawma mooy bis bu nga xam ni laa tamliku du tal nafsun benn bakkan li nafsin ñeel beneen bakkan shay'an dara yàllay wax waxoon naa la ni yowmal qiyaam kenn mënu lu fa kenn dara aaya baa ngi nii yàlla nee na yowma laa tamliku mooy bis bi nga xam ne du manal nafsun benn bakkan li nafsin ñeel beneen bakkan shay'an dara kenn mënu lu fa kenn dara de loolu yàllaa ko wax ma ngi ca suuratul infitaari wal amru keroog mbir yépp wal amru mbir yi yow ma isin keroog lillaahi ci loxo yàlla lay nekk de ci kàttanam de dugal aljana yàlla génnee yàlla yóbbu safara yàlla taxaw la araaf yàlla deme arash yàlla gis yàlla yàlla lépp ci loxo yàlla lay nekk wal amru keroog mbir yi isin keroog lillaahi yàlla kon nañ jaamu yàlla te wéetal ko te xam ni moo fi nekk tey te moo fi nekk ëllëg te moom la ñuy dajeel sadaqallahu al-mawlana al-azim wa balaqa rasulullah al-mustafa al-karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna ma'ana wa rasuluna min ash-shahidin loolu moo nekkoon seen tafsiru alquran ànd ak seen mbokku daara Pape Makhtar Sylla fii ci zawiya maam Seydi Cheikh Al Hadj Omar Al Foutiyu ànd ak Safina TV ak mbokki jullit yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh